ngir baal nu sunuy bàkkaar te sellal nu ci lépp lu jubadi sunu waxee ne defunu bàkkaar teg nanu ku koy tebbi waxam te kàddoom duggagul ci sunu xol